nekk parce que boo xoolee douane ëpp lu bëri la muy jàpp ci diggante frontière u Sénégal ak ak ak ak Gambie lay doon boo ñëwee ci lu jëm ci wàllum coupe de bois yi diggante Sénégal ak Gambie lay doon donc loolu war indi tey suñu kilifa yi ñu war a réfléchir xool yan moyen nañu war a mën a am approprié par rapport ak justement cette lutte contre ce trafic illicite de drogue mi nga xam ne deful lu dul indi ay jëye ci Sénégal peut-être un problème encore une fois oui il faut renforcer il faut renforcer peut-être les moyens yi nga xam ne mooy permettre a amal en temps ak fu mu mënti doon dote leen aussi des moyens yoo xamante ni appropriés yu leen mën a permettre ak nu mu mënti demee ak ku mu mënti doon ñu mën la mettre la main que ça soit en haute mer que ça soit également ci fi nga xam ne les cargaisons la fa na ñuy arraisonné justement Yacine et puis sànq yéen ngi wax ci wàllu moyens je pense que stratégie bi ngi teg bi ñu teg moo ngi porter ses fruits euh, du moment que a chaque fois ñu ngi annoncé euh, ay ay tonnes teg loxo moo fiscale wala euh, douane occultisme lu mu ci manti doon ñi ngi teg loxo la nga xam ne euh, mu ngi jéem a jaar fii ci Sénégal tey nag buñ fàtte ne lii nga xam ne moom la ñu jàpp nii Gambie la bawoo doon dem Guinée Bissau hmm. donc Sénégal la la la jaar Sénégal yoon la ñu ko def pour jaay li nga xam ne moom mooy drogue bi xanaa peut-être comme ni nga ko ni nga ko waxee li nga xam ne jàpp nañu ko euh, ndax lépp la ñuy lakk ndax am na luy dugg ci am na lu nga xam ne day des Euh, si ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo peut-être loolu moom moo jara topp ndax nag bu ñu fàttikoo bu fàttalikoo sa port fii tegoon nañ fi loxo euh, benn quantité bu importante bu nga xam ne drogue la ñu jékki-jékki ñu ne am na partie bu si manqué mm-hmm. mais li si manqué fu mu dugg mm-hmm. ak nañ ñoo ko fa jël mm-hmm. na euh, ko na mu waree ba teg loxo ñi nga xam ne ñoom ñoo fa jël loolu sa manqué loolu mooy laaj bi mooy li nga li nga wax sànq mais bu dee teg Euh, maanaam euh, teg loxo moyens yi ñu teg ngir xeex euh, wàllum drogue bi je pense que mi ngi am mi ngi am ay résultat ndax du à chaque fois ñu ngi annoncé saisi yu nga xam ne ñu ngi koy def mais seulement la nga xam ne nag moom la ñu ndax lakk nañu lépp ndax amul parti bu dugg si askan wi loolu moom moo jara laajte loolu moo jara topp. Eh, daanaka sax day di am des fois dañ koy dégg que day am. Mhm. parti nga xam ne day jota sax day rëcc. day rëcc ñi daal mooy loolu. Alaaji Alaaji nee na nga may ko professeur. Alaaji. mais dama bëggoon. Euh, c'est que Alaaji gisu la parce que. non mais gisuma waaye mi ngi may mi si de peut-être que mu la nga intervenir peut-être ci ci sujet bi nga xamante ni c'est l'actualité phare. Mhm. oui euh, peut-être li ma doon bëgg a dolli rek damay génn tuuti ci sujet bi mais loolu tamit trafic la te mafia la campus France Sénégal. xam nga dañuy organiser ay candidature pour nga mën a déposer pour dem tugal jàngi fa mhm. Mhm. actuellement vingt huit mille candidats ñoo déposé sur les vingt huit mille ñoom xam nañ ne quatre mille rek ñoo mën a am pour mën a dem jàng vingt huit mille yooyu ku ci nekk ñi ngi lay encaisser soixante quinze mille francs par personne mhm. quatre mille yooyu boo leen bu ñu leen xasee retenir sa candidature da nga war a joxe encore soixante et un mille francs pour li nga xam ne nee nañ yooyu moom ngay jël pour yónnee la sa passeport donc pour wan ne ne am na beneen trafic bu gën a graaw boo xam ne ne suñu autorité itam war nañ ci taxaw parce que di encaisse nit ay soixante quinze mille francs ñu ne déet na waay pour vingt huit mille personnes alors quatre mille rek na ne ñooñu nga mën a dox nga wëlbati ko encore di leen encaisse waat soixante un mille francs dafa nekk loo xam dañ ko war a lijjanti. xanaa sañu ñu loolu. loolu moo suñu la encaissé ba pare wut amul rejeté place dañ lay delloo mais ki koy ambassade France moo li muy def a gën a yées ah. ambassade France day lekk sa cent mille francs ba pare du la may visa or ci yeneen ambassades yi bu ñu la doon may visa dañ lay delloowaat sa xaalis yooyu France fi ñu toll nii dina lekk sa presque cent cinquante mille ba pare defal la non te souvent noo léegi fan lan lañ xewal mooy euh, mooy case bi nekk ci suuf Euh, dara wanuñu ni daal boo demee di nga ñëw quoi yow na ngay way magum jëmm yor fi njaboot yor fi kër yor fi teraanga yëpp Sénégal ah am presque cinquante ans yooyu ñu naan la boo boo boo demee dara wóoruñu di nga ñëw. te ka encaissé nañ la ba pare ba pare lekk presque sa cent cinquante mille ci ay procédure duñ la may visa yeneen ambassades yi bu leen leeree duñ la may visa dañ lay delloowaat sa këyit sa alal ak sa koppar ak mais Mamadou c'est la mérite quand même. un reportage beaucoup plus approfondi. oui il faut que ñu xam véritablement les tenants et les aboutissants lii nii ci kaw la a wax la ca biir lan moo ci am. parce que lu ñu mënul comprendre d' accord jàngi France peut être nit ñi bëgg nañ ko mm-hmm. bëgg nañ dem mais ñu ca bëri fu ñuy mujj xama la moodu moodu la ñuy mujj ji. Mm. ñu ci bëri bu ñuy dugg see France fu ñuy mujj la ñuy njëkkee mooy dem defi plonge parce que jàpp nañ ne bu ñu demul raxas di ay ay yooyu du ñu mën a am pour mën a nekk foofu parce que boo amul rapport que bourse Sénégal sax pratiquement serviratul dara foofu mhm. noonu donc yooyu yëpp nag mënoo ko dajale jël sa xaalis fii say waajur déjà soixante quinze mille daa met dang-dang dem jëli taxi beeg ñëw dem ba ambassade France mhm. déposer tourné waat ak yooyu nekk problème ba pare ñu mu leer na la duñ la may jël xaalis ba def seeni poste mais d'ailleurs actuellement la grande tendance en Afrique c'est que on n'envoie plus euh, xale yi dematuñ jàng ji ay fra ak léegi Maroc gi ne ñu dem boo demee Maroc le niveau d'enseignement envier ak tubaab bi léegi euh, booy français yu ndaw yi sax dañuy quitter France <laughs> ñëw di jàngi ci Maroc quoi. très bien. Hmm. aywa euh, Siré xanaa ñu dellu si waat rek si trafic ba nga xamante ni moom si moom la ñuy wooyee Sinébar. di dugg ci ci dëkk yi tolloog deux mille je le rappelle deux mille vingt six kilogrammes de cocaïne pure. waaw waaw loolu de moom daanaka du lu bees te soxna Yacine c'est que xam nga Sénégal. oui mais c'est un record dit-on. waaw on est dans au, au Finistère du continent africain comme on dit à partir de fii mën nga accéder pratiquement ci dëkk yu bari quoi te souvent aussi na ñuy jàpp ne euh, des fois drogue bi euh, nekkul ni euh, Sénégal mooy destination finale souvent dafiy def transit far fi muy defee transit. Mhm. Euh, fan ñu jàpp ko fi mais des fois am na yoo xam ne nag moom fii la jëm ci dëkk bi quoi. donc c' est un phénomène waaw c' est phénomène mondial boo xam ni euh, à la faveur du terrorisme et du djihadisme euh, donc narcotrafiquants yi aussi dañ ci profité waale wax tamit ne comme nu sur le plan sécuritaire pratiquement suñu terre ferme yi ni ñu gën a assuré dans les airs comme dans les eaux on n'a pas beaucoup de moyens donc ceci peut expliquer kii allez waaw ma nuyuwaat la. waaw nuyuwaatal rek. El Hadj Ahmed Aïdara. le grand-maire. Euh, par force et sans forcer euh, maa ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay lii ñaari PS yi la de wala. waaw ban PS nga fi gis nag El Hadj.